tout petit muy Ama Baldé ak Gris Bordeaux ñu doon xaar combat bu am jël far mu jeexee décision li nga xamante ni moom mooy la décision médicale. Hmm. ci combat boobu noonu donc ñu bàyyi ñu seetaan combat bi après ñu. wax ci lu ndaw soog a jàll. Ah, Ama Baldé am na avertissement. waaw avertissement pour Ama Baldé. ñu ngi lootoo ñoom ñaar. ndeysaan door na. Ama door na benn arrêt surface léegi. Ama cokkaas Ama cokkaasaat na. Ama dooran na Gris remise na ko. remise eh. Gris dugg na si garde bi. am na lu wadd. protège dent wu kan la. protège dent bu wadd. daa mel ni bu Ama bu Ama Baldé moo wadd. protège dent bu Ama Baldé. moo wadd combat bi daal daa mel yóbbu nañ ki nga xamante moom mooy Ama. dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg protège bi moom moo daanu waaye bu nekk xam ne combat combat bi protège protège daan la am leneen la yomb li wadd noonu laa bëgg xam protège daan la am ah parce que dafa jël coup ba muy bañ déedéet bañ mënul dañ foofu jugoo baa ngi noonu ramaa ngi noonu laay pël amaa dafa dóor la grande dame amaa dafa dóor cokkaasaat gir nga gis ko mooy borom alburax ay kuy ponkal la di jaajëfal suñu ay ami internet yi ñuy seetaan partout dans le monde au niveau de la diaspora ak ñi nga xamante ñu ñuy seetaan via window ñu leen jaajëfal bu baax a baax ñu ngi xeex mais ku ci nekk benn loxo ngay xeexe ak sa morom lii lan la ñu ngi xeex attention door mu daanu mbaa door mu daan du am attention door mu daanu ama tooñaat na ko ama dëggal na boppam attention daje nañu xeex nañ xeex bu mitti sànq combat bu nar a lay doon. ah ñu ngi xeex. xeex lii lan la. xeex ah ñu ngi xeex. Gris daa mel ni xeex la indi de. ah ñu ngi xeex mais ama ama moo njëkkee xeex bi. mais ama mu ngi xeex. ama jël na ko. rëcc. ama jël na ko. Gris bañ mais mais Gris dafa diis. mais Gris liggéey na si combat bi. waaw ama jël na ko mais Gris dafa diis. kuy dem ardo Gris day dem ci euh, ñu dellu si waat ci plateau bi donc coach euh, professeur Mané loolu moo doon grand combat bi doon dox ci Ama Baldé ak ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux signature yi ku nekk amoon noo waxee woon open press bi amaa def génn wane état wane xam nga euh, souplesse moom boppam xam nga mobile. ñu déglu euh, point de presse Gris Bordeaux mu ne supporter am yi sama supporter yi loolu bëgg combat benn bëgg naa lu ko raw arbitre bi ñu sentir jaxasoo bi ñoom ñaar dóorante bi xeex bi boxe bi Gris Bordeaux dóor Ama crochet droite ba li nga xamante ni mooy euh, kii wam wadd euh, protestant am donc Gris combat bi am na fu mu ko tolloon Gris jël na fi Ama daw moom ba avant génn saako yi loolu lépp am na fi teg ñu bëri peut-être xaaruñu woon Gris boobu noonu ñu gis Gris Bordeaux ak Ama Baldé Ama jekku na ko sax ba nar ko plaqué Gris diis mënul dem ñu gis Ama Baldé Gris Bordeaux après xeex bu mujjee faveur Ama Baldé xeex na xeex bu taxarnaase ku ne dóortu na sa morom mais Ama Baldé moo blessé ki nga xamante ni mooy Gris Bordeaux ba combat bi jeexee ci délai médical coach nan nga jàngatee combat boobu ci ñaari lutteurs yi ñu doon wax Gris Bordeaux jeex na tey mu indi beneen Gris Bordeaux bees na jàngatee mbir mi. non ñu xamul ñu xamul Gris Bordeaux rek. waaw ay supporters ñoo ko. ñu ñu ko xamul waaw non dinañ ko ko wax noonu parce que dañoo bëgg ndam. est-ce que mais mais mais mais Gris Bordeaux war na yee mbër bu ne. ci la ba léegi. ci la ba mu doon ba mu ba mu doonee Tigre de ba léegi. Mhm. est-ce que ñaari ñaari victoire la am si kaw Tigre de Fass bi. bëriwul ci taay Tyson la ci daan ak euh, kan. Tyson ak xaw ma kan la daan ci Tigre revanche bi mais ñaari ñaar yooyu ñaari ndam yooyu la ci am. ak Baye Mandione ak Baye la ci daan ba nga koy dóor mu daan. te boobu ba léegi wàccul ah boobu ba léegi wàccul parce que xam nga lu tax communication baax na teg ci dafa mën bis. keroog bis bi ku nekk boo duggee TikTok TikTok en général li li xew rek la léegi. waaw feccam boobu laa fër parce que dafa mën bis bu loolu weesoo. entraîné na si combat bi andi na doole. boo xoolee ama plaqué na ko plaqué boo xam. fi ko ci giri rek laa bëgg ñu wax de nañ laal giri ba pare. giri fi ko ama plaqué baax na de mais résistance giri moo ko fi bàyyi. mais nag xaaruma woon ci ci ci ama Baldé droite am poussé giri. loolu la kenn xaarul woon ñu bëri xaarul man gisoon naa ne deux pieds droite parce que toog naa fi nga toogoon ma wax la ko deux pieds droite chaque jour bu ñuy dóorante mais droite mooy fara di jóg en général te jógee bu dalee rek day def impact. boo xoolee bu bu giri ba mu dalee bu giri ba mu ba mu dalee Ama Baldé dafa yàgg protestant bi. protestant bi dafa war ñu arrêté combat bi ñu arrêté combat bi mu raxaskaat ko si xaat ko. Mhm. yaa ngi dégg gis nga si la protestant bi daanoo nii. Mhm. léegi bañ bañ continuer bëree Ama daa dëggalaat boppam ci xeex bi. waaw mais ñaar ñuy dóorante ku ne mën naa jël sa kubu morom. Mhm. en général parce que xeex lu mu jaar yoon loo ko jàng jàng am na foo xam bu fa xeex ba tollee rek am njaay joxal jot bi bu bëree rek. bu yàggee jàllo bu gudd dina ñëw. dina di nga jël coup loolu moo am ci combat bi mais Gris démérité wul bëreen lu mu waroon bëre xëy na combat bi nii la waroon mën a demee mais man gisoon naa ne daal main droite dina def am impact mais nag séntoo wu ko woon ci Ama Baldé ci Gris laa ko séntoon. professeur Mané. waaw Gris Bordeaux ak lu mën a ak lu gaay mën a wax. liñ ko defal ni ci si bi mooy li ko arrangé mooy benn benn. toogoon naa fi wax ko ne Gris Bordeaux ku benn benn ak moom day da koy gënal parce que loolu la bëgg droite di di baissé di jug gauche di baissé wu di jug mu lay natt di xool sa mbagg boo jug mu lay sentir boo dóoree bay dellu mu lay remise di jam yaa ngi comprendre en même yow. Hmm. Gris Bordeaux dóor Ama Baldé ba protestant Wade fi mu la fekk. avant combat bi nga ne Gris Bordeaux amul sens bu bëri pour dóor Ama Baldé. waaw parce que xam nga lu xam nga lu wax loolu. Ah, ah, ah, parce que Ama mooy li ma dama ne li ñu ko li ñu indil Gris Bordeaux mooy li gën ci moom te loolu la bëggoon. Ama Baldé ma dama jàpp li amaa indil Gris Bordeaux Gris Bordeaux loolu la ko gën a. xam nga lu loolu parce que pied droit pied droit la ñoom ñaan ñëpp. Mhm. kon donc foofu xeex dafay jaadu ala kulli xaal xeex bu am impact sax moo fay am. dóor yu métti dafay war a man am mais problème man dama jàpp ni ama bu fekkee ay mbokkam dañ ko yëpp indi ko mu war a bëri Gris pour man da koy tegeel tableau rek ñuuxu ko parce que moom bëri bi mooy avantage am sama xa sama sama xalaat ñu jàppante ñoom ñaar ama di ko plaqué léegi-léegi mooy action bi jàll ama ñu sentir ni ñun ñun ñun li ñu doon seetaan sénégalais yi ñun mm. les sénégalais de lambda ñu gis ne Ama Baldé mënul lu bëri tey ci Gris Bordeaux ñun mm-hmm. dafa diis Gris dafa moom dafa bokk ci bés bi tey. waaw dafa am cinquante pour cent dafa xaaj bés bi. Mhm. jox Ama jël moom 50 pour cent am donc ci bëree tey Ama mënul daan Gouye damay revenir ak mënul daan euh, Gris Bordeaux. damay damay revenir plaqué baa ngi nii. damay revenir ci li ci wax léegi léegi rek nee na Gris dafa mën bis dafa mën bis mais non seulement équipe bi bi mu bokk yi dañoo mën bis. mais tey bis bi ko ko bis bi mhm. wax dëgg suñu borom Ama Baldé bisam la. bisam nanguwuma waaw d'accord bis bi dañ ko xaaj ci digg bi Gris Bordeaux dafa indi cinquante ama indi cinquante Gris Bordeaux moo def tout ba saltel combat Ama Baldé loolu comme nag loolu merci mooy baax bopp bi nekk si doo sànq may ma jël kii après professeur ñu dellu si waat asalaamaaleykum mbokk meek mbokk mi ça va daa njabaay maa ngi siyaar ñu ngi lay dellu siyaar bu wér sang bi fooy wootee ak tur beeg sant bi ay parcelle laay wootee unité 20 Moustapha Ndiaye la parcelle unité 20 Moustapha Ndiaye ñu ngi lay siyaar jarbaatu jarbaatu kursi karkat kursi mineur bi Eh, bëggee Abdou Moustapha sama jarbaat. waaw waaw kii sama jarbaat la ndaanaan la. macha mbokkum yaayu Tafa Mbër. ok waaw waaw. <laughs> ci kaw ñu ngi kontaan. rajo waaw instant boobu am na am nañ contentement moom mooy ki ma fi doon ziar keroog naan ko am di Moustapha Ba yàlla am di Moustapha jàmbaar ji waaw sama jarbaat la mais na moom ku xam làmb la moom it waaw mais am nañ contenté bu baax a baax ni nga duggee am di Moustapha ñoo far ñoo far kat yow mais am di Moustapha waaw borom inte dix-huit inte ah. waaw waaw kay doom nday doom nday yow da ngay dund làmb yaa ngi ci plateau làmb tey lan ngay wax lan ngay wax lan nga gisee plateau bi waaw làmb moom si kaw si kanam rek ndax tamit mooy suñu sport national. dëgg la. ñun moom dañu cee bëgg dëgg la suñu toile bëggee fu ma bëgg seen sport ñun ñun fa la ñu la léegi par rapport ak analyse yi noo koy gisee booba léegi keroog ñu ngi woon ci plateau tey ñu nekkaat ci plateau bi noo gisee coach 4-4 ay gis-gisam ak ki nga xamante ni mooy la professeur Mané ak ki nga xamante ni mooy présenté eh, eh, émission bi plateau bi muy jëli wu ñuul. waaye coach 4-4 moom bu ñu fa ne yàlla affaire de say yàgg. macha allah. waaw affaire boobu da cee yàgg bi mu nekkee ba ba léegi lambar lay toog. Mhm. moo tax nee naa ko moom ku yàgg si ku yàgg si teenoom paam fekk la fa. dëgg la. waaw moom na def nànk-nànk rek dina am lu mu bëgg te ay ay ay ay ay réponses yu pertinent lay joxe affaire am ni bi mhm. boo ko boo ko tiwloo da nga xam ne lii nii làmb la. macha allah. waaw kat moom champion la. macha allah looy wax noo gisee professeur Mané professeur Mané noo gisee. yéen a ngi ay ay ay def résultat si làmb ji. ah yàlla. <laughs> allo am na Moussa mu ngi wax si plateau waaw gars yi gars xam naa ne café ga nga nekk. waaw waa kafe gi nee naa nee leen maa ngi leen di bëggee tey nuyoo bi du ma ko teg si loxo saay laay saane si sa loxo laa koy teg am di Moussa Ba sama jarbaat. waaw nuyul ma ñëpp ziaral ma leen. jaajëf jaajëf. jërëjëf Amdi Moustapha borom parcelle unité 20 fan la ñu amoon ci saali wala ci waaw la ah, nekkoon rek ah, sama mais mais mais du ma ko bañ boo ma ko mëxee ma jël. mais en tout lu mu ci munti doon moom mooy Ama Baldé bu fekkee dafa feebar la wax dafa feebaroon. non wér na waaw non non dafa feebaroon junj nañu ko feebaroon ne su ma wëree. Ah. su ma wëree ne foo ko déggee fu ne kon feebaroon la su ma wëree. góor mënuma kenn du ma conseillé. waaw moom laa lay wax dama ne loolu la waxoon. man démb laay xool démb laay njëkk jàngat xool tey soo ko mën a wax la suba. ok exemple foofu laay moom li mu wax démb. Mhm. ak li mu àndi tey. dëgg la ndaanaan la mais des na ba léegi ak surtout combat yu fatal yi mu a bëri après ku ci mel ni. dafa mel ni am na ku nekk si ligne bi ñu jël ko mbokk mi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, sang bi tur beeg sant bi ak fay woote. waaw ah, man la Modou Fall. Mamadou Fall. waaw doomu lay kakkat kut kakkat. Eh, eh, Modou Fall Modou Fall. Modou Fall ziar nañ la maa ngi lay bàyyi coach coach dalal la mi ah. waa njool mi la. waa njool mi njool mi njool mi do do doomu yaay doomu yaay doomu yaay président Diomaye Faye. sëfëram la day laaxatu nag. ok macha allah. waaw mais am nañ kontaan ni nga duggee nii njool mi. ay waaw ziar nañ la bu wér kontaan nañ si yow. mais ñuy kontaan bu baax a baax a baax. waaw waaw dooley jën moom ndox la barke sëñ Touba. yow moom sole ma doolelee rek ma am doole. waaw ah, yow xam nga man dama laa yëpp rek mais mais champion ma quoi. non <laughs> ah, maa ngi sa ginnaaw maa ngi sa ginnaaw. ah coach eh, eh, Modou Fall. waaw kon da ngay sonal coach di ko di ko di ko di ko tegal lu metti non côté bi maa ngi maa ngi dund laale. non ñamal ma ci tuuti ñamal ma ci tuuti concentration yéen ñaar macha allah deux mètres <laughs> macha allah deux mètres lay lay lay kii. macha allah am na plus de cent cent et quelques kilos. macha allah ndaanaan la te représenté na Sénégal fu ne. si ah, si si si si judo la xaw ma. judo judo eh. judo ah. non champion la. ah yow yow waaw ndaanaan la quoi moo tax nag mais nag loolu moom xamal naa ko ko. te ndaanaan la la invité incha allah rabi parce que parce que judo dafa bokk ci làmb. dinañ waxtaan ci làmb incha allahu rabbi. incha allah mais mais kosu kosu moom kosu mag la quoi. ah jàppale booy yi. non non gar la xam nga man jinne yi laay laay dugg di leen recruter ndànk-ndànk di xëcc. kooku jinne la man boo aayul du ma teg Séné télé Sénégal de. fii ku aay rek moo fi toog man rek maay cuune. mais tax li tax li tax ñu tudd ko kàkkaay gaawam rek. <laughs> waaye tegal ma sa baaraam <laughs> balaa nga wax lu ëpp. Eh, eh, Modou mais kontaan na kontaan na si émission bi waaw macha allah macha allah macha allah yéen a ko moom yéen a ko moom. waaw d'accord incha allah ñu ko mais bégal ma waa café gi gars yi mbaar mi bégal. bégal bégal leen ñu ah bégal leen ñu ñëpp ñu ñëw naan si café nag incha allah. d'accord incha allah. macha allah bégal ma yëpp. jaajëf ko jaajëf kay mm-hmm. eh, loolu loolu daal moo ci nekk Ama Baldé dafa dese ay combat yoo xamante ne combat la yoo xamante ne tey jii Ama Baldé ku muus la ba mu toogee si plateau bi lu tax mu lim Franc Ama Baldé bëriwul ay adversaire si làmb yow doo bëreeg Lac de Guiers doo bëreeg Balla Gaye doo bëreeg Sa Thiès te yaa ngi ne yaa ngi ci ci kaw ci kaw kan la fay bëreel à part Gris Bordeaux. Euh, non Reug Reug côté côté boobu. exemple Ama Baldé jël na jël na avance gos mën na bëri droit. non eh, dafa xam nga dafa am ñu nekk seen ginnaaw di ñëw muy seen ay rakk te d'ici un an dañu war a bëri ak ñoom xam naa ne doo leen bàyyi xel par may waxee. gis nga ñoom Zoss bu nekkee fin carrière ñoom guy gi après ñoom génération ñoom Ama Baldé ñoo ci topp ñooy seen génération mooy deuxième génération bi li dafa am troisième génération bu toppaat si ñoom Ama Baldé. waaw ah. ñoom Sa Thiès dafa am ñeneen ñu toppaat seen ginnaaw si deux ans ñoom ñu ñu bëreel. xam nga la moo tax ma wax la li ma la wax. Mhm. man lu ma déggoo ma ne la man fu lu may wax lu ne dama koy teg ci temps parce lu tax Ama Baldé dafa toll si am xaalis te amul te amul lim li moroom mi am dëgg-dëgg daa si am xaalis amul li mi am. ñàkkut nag de mais amu ko parce que am lu tax ay adversaire am néew na te dafa toll ci am xaalis tey yi ñooñu balaa mu leen di laal war naa am xaalis fii mu toll ba pare te bëriwul adversaire comme ni ma lay wax franc boo limee franc franc bu ñëwee baax na rëdd bu ñëwee baax na après ñooñu kan lay bëreel ñi nga may wax yegg seeguñu. nga tey bu doon Ada Fass bu amul woon problème bii. waaw bii nii waaw. saison prochaine. mun na bëri ñu ngi fin saison. waaw saison prochaine. waaw fin saison combat boobu mën na taxaw pour deux mille vingt. waaw mais combat boobu noonu nit ñi bëgguñu ko. kan ak kan. Ada Fass Ama Baldé bëgguñu ko. non non loolu bu mën taxaw léegi lu tax non du question de. et puis ñoom ñoom tuddaguñ leen ci làmb sax dafa mel ni. yow doo Sénégal sa gis-gis rek ngay wax. Mhm. waaw mais Sénégal xam nga dafa dafa yaatu na yaatuwaay boo xamante ni làmb ji boo amee problème adversaire dafa am ñoo xamante ni ñooy catégorie boo xamante ni force da nga leen di jël yow yaa ko wax moom dafa am problème adversaire te ni mu amee problème adversaire affaire da mbokk moo ko waral. fii laa la koy waxee Ada buy bëreeg ñu ci kaw xam nga kan la njëkk a bëreel ñu ngi wax mu ëmm seen nii xaw ma ba xam dina ko jëlam du ko jël mais xam nga kan mooy yoon bi ak kan lay njëkk a bëreel foofu dina la bett loolu Siteu lay doon. waaw mais ba léegi damay bëgg. moom laa lay wax noonu ñuy delluwaat ci combat euh, ci adversaire u Ama Baldé yi. waaw adversaire u Ama moom laa lay dama leen ne bu amee man dégagé naa loolu nga wax pour ñu bañ a dégaame mais dama leen ne Ama Baldé ñaar ñooñu ma la képp laa gis amul keneen koo xam ne kan la fay bëreel moog Lac de Guiers Jules Baldé dafa waroon a taxaw ne le mais Ama dafa nekk si contrat sax yëpp waaw Ama non si mu ngi ci contrat mu ngi ñi mu ñi mu war a bëreel ñii rek la gis nga rëg-rëg moom Ama day bëreek moom. loolu contrat bu Siteu Ama day bëreek moom. Franc moom ngay wax Ama day bëreek moom. Euh, Moussa Ndoye Ama day ñëw bëreeg moom. gis nga ñii ay adversaire Ama la mun taw a ñooñu ay day bëreeg ñooñu. làmb ñi la ko booleel xam nga mooy li may wax sànq ne ko am nañu ko làmb booleel. ñoom la ñoom lañ bëreel te buñ leen xoolee dañ koy gis. ñoo ñëpp c'est juste que ñenn ñi dañoo amul promo bi. te léegi Tapha Tine mhm. ñu war a bëre. bëri na gis nga moom Boy Niang bokkaat nañu benn adversaire Boy Niang ak. Reug Reug la war a bëre bu fa jógee Ama lay jëli ji. mais nag ko lu soofa ngi noonu nag. gis nga loolu looloo taaloon Pikine mais dina ko booyalaat de. ci combat bii nii nii nii est que am na sens ci adversaire ci combat bi. bu dee jëli tamit dëgg dëgg. combat bi combat bi bëri na sénégalais eh, eh, nekkul ci moom. Eh. mbapat bi ñuy wax naan Ama dafa mbapat mbapat bi newul ci moom. këstu nee na kii lu mu diis diis na nee na nee nee na nee na papa booy ji moo war a dem wàcc si kii bi. si mbapat bi arène waaw comme adressé woon wallahi azim Ama la gën a jekk jamono ji. <laughs> mais li nga wax ni sénégalais dañ ko wax dañ ne Ama Baldé amul bëre. Serigne Saliou si Ama Baldé la gën a jekk du lool ndaanaan la làmb la bu bëree mu neex bu wàcc sax day neex. doomu faalaay boobu kenn mënu koo génne si làmb yàlla na ko yàlla fay cat. dina dina leen mais nag naa la wax a wàccaat. dem maanaam xoolal gis nga amaa gis nga Modou Lo si quatre-vingt-cinq ans bi mu dund ak moom seen contrat boobu li mu rey amaa non ni mu bëree sa dafa rey na ko financièrement dafa dee. parce que nag boo xoolee amaa li topp ci ginnaawam daa bëri ku jaaxle dem ci moom te muy mbër askan bi yaakaar ko goxam yaakaar ko mu yor kër yor jabar doom toute la famille di leen di di leen taxaw bari nga sax ñoo ñuy noog ci ay jafe-jafe dem ci ama pour di pour pour ñaan ko ndimbal ak yu ni mel. donc mu yàgg def ba pare na gëj ci làmb ji ama dafa gëj ci làmb ji réer carrément contre moom Modou Lo bi ak Gris ko ci làmb li koy wane mooy bu mu bëree Gris Bordeaux Gris Bordeaux ba pare ba na moom mais ama ko xool xam ne dafa réer ci làmb da géej maanaam nii da nekk naxa naxa nax ko daan ko sax da ci yomb. coach en tant que ñu gis ni Ama dafa beng instant bii dafa de instant bii nii dëgg yàlla. Euh, amateurs yi man bëriwuma commentaire yu ma liim yu félicité yu félicité Ama euh, le contraire. Gris Bordeaux lañ doon félicité Ama Balde nekk avenir Ama Balde nekk xale ci combat bi Ama Balde jóge ci bëre combat royal moom ak Modou Lo malgré défaite la ci jëlee. Ama Baldé ñëw ngir bëri Gris Bordeaux mel ni ku mësul bëri. mel ni ku xamul dara pour wax ji. ndaanaan la waaye dafa réer ndaanaan la waaye dafa réer pour lu mën a closer wax ji daal. Hmm. mooy Ama Baldé mii nii ku mu ëppul doole ñaar yoon du la daal. waaw loolu am na mais doole rek ka mën a bëre tamit da ci am parce que yow nga jàpp moom la la ko si tënkal moom dama lay wax benn affaire. nee naa la benn kele bu wóor ak doole ju bari ub na làmb dëgg la benn clé bu wóor rek. zori sax dañuy am benn benn technique rek maanaam dama la bëgg a xamal benn affaire gis nga làmb boo mënul bëree amal doole ju bari parce que saa su doole ñëwee doole su ëppee ñaari yoon technique moo mën technique xam ba xam dégg nga fu may waxee. waaw maanaam nit ki mu am technique. yow nga ëpp ko doole ñaari yoon technique am du feeñ mu def day yàqu. non doole sa daa mën dëgg because boo xoolee combat Modou Lo ak Bombardier noonu la demee. doole ji moo ëpp tax chaque lu mu def lu ne day yàq léegi moom laa lay wax di nga def lu ne waaye fa xam nga fu ngay mujjee daan ok moo tax ma ne la Ama bale mi na ëpp gars yi doole dama la junj ne dàqul bëre ñaar ñi muy wax nii muy Franc dàqul bëre Franc dàqul bëre Reug Reug ñaar ñoom ñaar ñooñu lenn kese laa am damay jooy chaque jour te fu ma toog dama koy waxtaan mais est-ce que Ama Baldé na am sens ci ñaari combat yooyu noonu non moom laa lay wax ci ñaari adversaire yooyu noonu Franc ak ki nga xamante ne bu leen doole bu leen ëppul doole du leen daan mais ëpp doole ëpp euh, doole franc est-ce que loolu yombul. yombul nag moo tax ma wax la ma la moo tax ma ne la mën a junj. junj dafay doy borom xel. maanaam li ma la bëgg a xamal mooy ñaar ñoom lenn rek la ñuy jooy si ñoom seen communication moo baaxul mais seen communication bu ñu ko defaree ñoo raw Balla Gaye raw Eumeu Sène. mbër ne mbër ne kii euh, Ama Baldé dafa war a delluwaat ci li nga xamante ni mooy mbapat bi dem mbapat di ci waat. non yow loo gisee loolu. non non dëgg dëgg yokk doole rek. yokk doole doole la na ko wute ji na ko gën a doole ah, ah, doole doole bëri yow chaque jour Ama Baldé lan lay def Ama Baldé du def lu extraordinaire xam nga lay def daw jëli la fi jëlee la fi jàpp sa tànk wala mu takk la weñ sànni fële wala mu pakete la. ah doole lay bëree. doole lay bëree moom laa lay wax. yemul ak Boy Niang waaw bokkul ak Boy Niang bi nga xamante ne mën naa def recul nga song ko mu nax la. kon Boy Niang moom ëpp wecc du bëree. moom laa lay wecc du bëree duñ benn ku ci nekk dafa am nu mu mënee. ok Ama bëri doole mais Ama moo ci aay. ok. mën a bëree dafa am ak mën a daan mën a bëree dafa am ak mën a daan. baax na dinañ ci comme am ay joueurs yoo xam ne dañoo mën a dugal mais mënuñu football. Mm-hmm. waaw waaw waaw ay lañ leen tuddee mooy ñoo xamante ne ay finisseur lañ. ok professeur yow nga ne ko li ko li ko dimbali du lenn lu dul dem mbappati ji. daawara wàccaat de. daawara wàccaat de teg loolu ndax li mais contre Gris Bordeaux moo ko wane. Ama Baldé bërëm daan na gën a bi dañ ko wili par dañ ko wane. maanaam waaw Gris Bordeaux da ko xaw a feeñal. da ko feeñal parce que tey boo xoolee. dugal na bi Ama Baldé gis nga victoire bi da ko si da kontaan. ok et pourtant ñu ñi ko doon xaar làmb pendant des années. Mhm. bégguñu mais moom dafa bég. ok moo lay wan ni dafa mel ni kon dafa xaw a beng. baax na comme son bi mu dóor loolu. benn xam na ne yàlla xam na ne ah, combat bi combat bi bu déroulé woon ba ci kanam. Euh, bu woon ba ci kanam. fii ba fii ba gée xam a gée fa la leen fekk. fii ba ñi ba ba ba ba ba ñu noonu dafa lii maa la ko wax du daan Gris Bordeaux xam nga lu tax Ama Baldé xool ko si làmb yu bëree yëpp bu mu ci xaw a bu mu ci xaw a kii runtum daje nii te mm-hmm. daanu la si saa si mm-hmm. dina bëre a dee am na am na lu ma ci xam sax mais du ma ko wax. na am na am na am na lu ma ci xam am na lu mais loolu vie privée am la. et puis ci moom la nekk loolu c'est pas c'est pas intéressant ma toog ci plateau. non am na loo xamante ni mais d'accord mais gis moom a. dañoo bi la. xamuñu asthmatique la xamuñu day fatt mais gis nañu athlète bi nii moom ak dàq Ama bu combat arbitre bu nee prix ñu daw ci une minute commencé dugg ci une minute quarante cinq deux minutes dañuy sentir ni Ama di noyee Ama ni muy appatee. Ama est-ce que bu defee contact buy ñëwaat de. non bu defee non defee contact buy delluwaat ci këcc sax. waaw buy dox. da nga koy sentir tamit laaj ndox sax naan merci. léegi loolu nag du problème du problème entraînement leneen la comme li ma la wax rek du ma toog ci plateau bi. waaw non non. Ah, waa Pikine. jëli yow ni ngay faram-fàccee waa Pikine dafa garaaw professeur. en tout cas en ngi noonu na wàccaat daal. Ah. waaw daal moo gën wóor. léegi dernier conseil kon di ñu tëj. en en tout cas man. Ah. man de ma part personnelle. heure buy bëri yàlla xam na ni moom laay ñaanal mu daal parce que sama mboq la te Zil Balde mi nga xamante ne moom. mooy magam ñu bokk ndey ak baay ñun ñëpp c'est la famille xamante nañ ñoo bokk fi ñu fi fa ñu toog di waxtaanee maanaam bu neen ba génn Ndakaaru Njaay ah. ñooy bokkaat pénc ñoo bokk maam ñoo bokk fañ jógee donc kon c'est la famille waaye man suy bëree moom laay ñaanal barke alxuraan su ma sañoon mu delluwaat di mu uti ji waat ko parce que mbër la da cee bokk te Ama warul mën a manqué si làmb parce que lépp loolu la réeroon ci Falaye Baldé mu ngi si Ama. mu bëri ci Gris looy jox looy wax Gris. Gris waa wala mu jël adversaire non la. pour une sos ah. mooy que ni gis nga niveau bi fi mu nekkoon. Gris Bordeaux def na tout bëriwul ay victoire mais wàcce wu ko. li naan nante. du aada. du Siteu mais Gris Bordeaux mooy nante. waaw ah, parce que moom baar bi da koo yéege rek ci ko wàccee. te munoo raba rab ba mu wàcc. léegi nag yaa ngi ciy dégg benn combat muy moom ak euh, Sa Thiès yaa lu yenn maanaa la lu yenn maanaa la mu yenn maanaa. bisimilah waaw pour lan ngay wax pour pour euh, ma tëj ko rek mu gën a gaaw. ñu génn foofu moom mooy. Gris Bordeaux combat la mënatul bañ benn combat instant fi mu toll nii wàccul nag mais dañoo toll si grand contre boobu ba léegi tamit. loolu la ko doon jox. jot nañu mayaat ko sens mu wanewaat. non amul sens moom mooy maye gars daanu non ay supporter am ñoo ah, ah, ah. ba la. waaw léegi moom laa la wax dàbbali rek. dañ koy mayaat sens parce que la mhm. Gris Bordeaux mbër la nante la ci mag yu dëgër yi la bokk dafa muus. ci mag yu dëgër du wàcc day daanu di gën a seet. du nga xare ok loolu la am ci li ñu wax ah. loolu la amoon euh, ci combat nga xamante ni moo amoon le 30 euh, juin fële ci arène nationale ñi nga xamante ni ñooy waa Alburax Evans tëggoon ko ñu jàll ci combat yi nga xamante ni mooy am suba ki nga xamante ni mooy Iwulaay production moo ko tëgg suba samedi le 6 juillet incha allahu rabbi grand combat bi di dox ci diggante.